sobus talankunzini la ñun de Daaru Salaam lañu koy man de maa ngi fi ñëw en 1998 wax dëgg ci ci kaw baatin dal laa gise fii mu di dëkkuwaay ci man sama aqulaay taal na ma daal di dox ak sama tànk booba fii yëpp ay sant rek a fi nekk ma dox ak sama tànk bi ñëw gis xamtu yi nga xam ne presque moom la sunu borom won ma def fi sama nekk lumhlabu ngawaba masonto mane masonto omana lumhlabu ngawaba wetalilalela henamtase won naa ne daal ba ñu ñëwee di xëccoo te coow li bëgg a bari man maa wax Mamadou sama doom ne ko léegi nañ ko dagg yëpp ku ci nekk fa nga nekk nga féete fa bu ko defee kenn dootu jóge fa di xëccoo jamono moo naqari ñu fàkk dëkk fi waaw waaw nag du kenn koo ñu xam ne moo ñu autorité pour ñu dëkk fi ndax xam nga it nekk ci coon te coonu jaambur la loo ciy wax rek waxal loo xam ne moo jaar yoon wax lu wóor fii moom ku wax ne nekk fii neex na dafay met day la wax lu ko neex rek bi may ñëw fii ci location laa nekkoon location ba metti lool may def nag saa yu ma liggéeyee bay wàcc rek lu ma dese si bénéfice jënd si seng baa ma jënd ci bant bu ma ñëwee denc su ma tee laaj ma daaj ko laaj wéer noonu laay def ba am fi benn néeg noonu laay def ba néeg ba loolu moo ma denc fi waa ni ngay ñëw fii location bu métti moom a jëli fi ma nekkoon aw ma ko te jàpp borom kër laa te war naa fere war naa jox dundal sama njaboot te lu mu bon bon maa ngi ñetti jabar te jamono neexul lool rek moo ma arrangé ma mën a dem ñëw fortaatu amal sama bopp moon cee liggéey. d'abord dafa am ñu fi ñëwoon di xëccoo te par force dañu fiy dëkk te xëy seen jikko ak suñu jikko nekkul benn ndax ñun li ñu taxoon a dëkk fii mooy ba nu fiy dëkk wax dëgg yàlla ay nit ñu man dëkk naa fi at yoo xam ne guddi gi jot fee laay toog ci buntu kër gi samp sama ngànnaay ngir rek ay bandi yu fiy traversé waaw waaw nag comme ñu ngi fii ñoom ñu ngi fiy traversé te boo sequl ak ñoom dara amoo ñoom benn affaire doo kaf ak ñoom doo am ñoom benn relation yàlla mën na dawal nga mucc. waaye nag yàlla dogal Ismaïla Thioune ñu woote fii réunion pour. ne daal wax dëgg ni ñuy agressé ñi ak ni ñu leen sonale fii daal wax dëgg yàlla te nekk fi di ay jullit loolu daal rafetlu wut bi ñuy wax koy waxtaan rek am ndaw su yuux ci kaw koom bi réunion ba kat foofu la tase ñu daal di euh, euh, dàqwaa ji ba fii moom fii ay garab kese ñoo fi nekk ñu dugg ci biir garab fekk fii waaye fekk ay mbooloo ñu jàpp leen door a door a door ba ñu mokk ñu kii ñu eh, eh, soog a wëññi daanaka la ci xew yëpp sax presque mu ne su ko wax parce que am na ñoo xam ne ñu doon bëgg a interventionné pour pour ñi nga xam ne ñooy wëy waaye ma ne leen yéen nag yéen kon ci bokk ñu soog a wëññi ko ne déedéet bokkuñ ci. def seen i tooxi doona fële nag daw di wët fu ñuy làq bi waaye ñun duñ leen may fii pour ñu def defe nañu yenn yi ndax xam nañ ne buñ fi defee yenn yi amaan ñu jànkoonte ak ñoom dina mën a métti. dañu fi ñëw. ah di def yoo xam ne kii wut euh, euh, gënut comme ay sàcc ay agresseur ak yooyu ak yi ñaawteef dal ak yi di fi yu bon yooyu yëpp am na fi waaye nag ñi koy def dëkkuñu fi. loolu moom dégg naa ko waaye tamit teguma ci sama bët waaw. damay dégg nag ne léeg dañu kar ko nit waa teguma sama man daal diiran bi ma dëkkee feeg léegi mayu ma leen lu ma seq ñoom benn relation buñ may kare mbaa bokk ku dëkk si kër gi buñ la xamee foo mën leen rombit dañ la bàyyi nga dem ndax dinañ xam ne amaana ci biir kër gi nga jóge agressé mënoon ñàkk waaye nag bu ñu ko yéegee dañuy awalu borom euh, euh, euh, ñoo ña daw ñu sooy leen ndox mënu koy yomb ndax placement bi la te doole ji ko fi war a andi du amuñu ko il faut dañoo mën a muñ rek di wéeru si nga xam ne moom la ñu yaakaar ne mën nañoo dimbalee si ndox ba ndox mën fee am waale bu ñu ne tëbatëb ne ndox dina fi am ba courant dina fi am wax dëgg yàlla mënul nekk ndax bi place moo dul place boo xam ne dañoo tëb jënd ko mbaa ñu may ñu ko mbaa ñu luyee ñu ko place bi ñun ñoo ko lijjanti ba dëkk fi ngir ñàkk pexe nit nag soo nekkee si zone boo xam ne la la fa denc ci kaw ñàkk pexe la du sa yëf il faut que da mën di négocier rek waa ni mënoo faa ne far force nangam am kooku mënul nekk. moom kay bëgg nañu courant bëgg na it ko de ndax yaa ngay rooti ba ca pakk gàddu ko indi fii courant amul ci lamp kii rek la taal. fii salte bi neexuma fi deuxièmement comme alalu jàmbur la ma nekk fi di ko yàqal bëgguma ko moo tax su ma nekkee fii damay xel di nettoyer li dalee gaar ba ba fii ba ba ngay romb fii. chaque jour boo yéexoon gis nga sëb yi man maay nettoyé li fi nekk yëpp di ko defar ba mu jekk ngir bañ bañ lépp bañ a tooñ la ak bañ a yàq xam nga ku sañoon doo nekk fenn fu am burwe waaye nag nit bu nekkee foo xam ne moomu ko ka ko moom fa jaar na mu mel da nga koy ànd ak da koy nangu da ko koy nangul loolu la ñuy dundee fii il faut nga muñ ko yow yaa ngi war na am tey souterrain boo xam ne bu place lay nekk yàlla may la boobu doole soo ñëwee fii train bi du doon palaasu train bi nga dëkk fi il faut nga mun a muñ obligatoire nga muñ